fii nag ku dégg jataay bi ak gis jataay bi ñu demee xam ne ñu ngi fiy dundal xasida yi ci anam bu sell ci bëgg-bëggu sëriñ bi ci suba ba léegi ñu ngi fi di ko dundal ci dundin wu rafet mboolem jànkari xasida yi kéet gi ñu yor ci ren ñu tënkaloon mboolem xasida yi nga xam woon nañ ñu ko ci béréb bi ak yeneen xasida yoo xamante ne it murid yi ko fi yëkkati yu wuuteeg yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati tañ bàyyiwuñ ko taxul ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax léegi ñoo ngi sàkku mboolem ku ku ku ñu teewlu xam ni lu lu yemoog ay tay tay si roxantiir jaalibatu maraaxib fatul fataax wasilatu rubo asma ahlu badrin mafatihul bisri maa daayixul fadaayil ak xasida yi nga xamante ne maanaam sëriñ bi da koo tënk ci maddu ak xasida yi nga xam ne dañ ko tënk ci muharram yëpp dañ koy maas di ko jàng fii luñ ci defar jàng ba noppi rek danañ ko saytu saytu sell ci anam yu rafet maanaam daal koy jël lépp jébbal ko ñi nga xamante ne mooy waa xisbu tarxiya ñu leeral ko ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi bàyyi xel baax mboolem jànkati xasida yi ñu ngi fii di ko dund ci dund rafet euh, fii nag dara manqué fi ndax lépp a ngi rafet jànkatu xasida yi ñu ngi koy dund dund bu rafet sëñ Baara Teen di magum jànkatu xasaayit moom mooy jàng noonu mboolem jànkat xasida yi ñëpp ñu ngi teewlu di rafet lu jotaay bu baax a baax ñoo ngi ñaan mboolem ko suñ borom dogal nga teew ci jotaay bi te ñu ñaan yàlla defal defal ñëpp jàmm ci barkeb Seexul Xaddim am nañ mbégte bu baax fii daal liggéey bi ñu fi liggéey daal ñoo gi ñaan mboolem ku ku ku ni teeraan tey teewlu jotaay bi nga ñaanal ñu lépp ñu dëppoo ci bëgg bi sëriñ bi mboolem jànkatu xëdda yi daal ñu ngi fii seen dara manqué wut ñu fi fekk di leen berndeel di leen toppatoo seen dara manqué fii nii fi la bindkat yi nekk kon ku dégg sëriñ bi naan wahab liman yaqra'uhu aw yaktubu xayral munaa yaa man atani kutubu kon jànkatu xëdd yi rajat ñi ngi fii ñi bind xëdd yi ñi ngi fii jàkkaarloo kon nii daal dañ tënkee jataay bi ñoo ngi ñaan mboolem ko suñ borom dogal nga ñëw ci bis bi balaa bi nga xam ne ñoo ngi koy dégg yàlla nañu ko suñ borom dàqal ci barkeb xasida yi euh, ñot ñu ay tawfeex ak i xéewal ak mbégte yoo xamante ne mboolem fu waay nekk rek yàlla na la fa fekk te defal la fa ay tawfeex te musal la ci mbas bi musal la ci balaa bi musal la ci pakk yi ak ndog yi barke borom Touba barke xeetu di Seexul Xadim yi ñu ñu di fi jàng ñu ngi rafetlu bu baax a ci ndigalul Serigne Youssou Diop Cheikh Hamsatou Mbackeem Serigne Souhaïbou ñu ñoom ñëpp ñu liggéey bi ci anam yu ñu ko joxe lépp it ñu koy saytu ci saytu loo xamante ni daan ci liñ ciy ñaan daal ñu dëppoo ci bëgg-bëgg sëriñ bi ba nit ñu ko joxee ñu di ko saytoo noonu lépp mën a eh, yéwén te rafet ñu mën leen ko jébalaat ci jébalin bu sell ñoo ngi ñaan képp ku fi teew daal yàlla faj tay aajo saahir ak baatin jàngkatu xasida yëpp ñu ngi fi mboolem rajatkat yi ñëpp ngi fi duruskat yi ñëpp ngi fi ñu ngi koy jàng ci njàngin bu sell ci anam yu sell kon ñoo ngi taxawlu foofu tey ñaan sëriñ bi defal ñëpp jàmm te faj suñuy aajo saahir ak baatin